Viernes, Roquina. CFA fi toogoon léegi nii. waaw nga ne sànq da ko doon da ko doon tooñ. Mhm. en fait c' son job qui le demande. Mhm. il devrait envers les gens. Mhm. c' comme ça parce que bu ko defalee nit yi dinañ ko yab wala dina perte liggéeyam. voilà donc nit yi nañ ko gën a critiquer. donc ñu critiquer la si sa liggéey mi nga xamante da koy def normalement waaw nu mu waree donc ah. c' encore c' encore euh, voilà. c' la je crois que c' la meilleure des choses. Euh, amee remercier mhm. di remercier euh, comment petit petit production il de là. Mhm. donc euh, ñii dañoo nekk ay xale yi nga xamante ne euh, tey jii. voilà mhm. jàng nekkul jàng kese mooy tax tey jii nga. am nga réussir si àdduna bi. donc ils on fait aujourd'hui ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat. donc avant entrepreneuriat boo koy def. foo nga am euh, esprit de leadership. Mhm. donc esprit de leadership boobu noonu moo leen te moo leen moo leen yëkkati tey jii ba tey jii fu ñu egsi mhm. donc euh, naa leen di remercier bu baax a baax. Mhm. ndax ñoom ñëpp ay xale ñu boo xoolee ba xool màgguñu leen ah wala ñoom màgguñu de ñoo bokk génération. donc euh, ñun bu ñu leen dimbalewulee xam ñu yaakaar naa ne voilà y a personne qui pourrait les aider. donc eux. ils gagnent a en nous et nous on gagne en donc kii business bi nga xamante ne moom mooy naka di daw si biir lamb Sénégal. donc euh, di remercier ñu fi teew yëpp. di remercier mbër yi. di euh, je crois que peut-être. Euh, waaye moom bàyyi sa waay mu nuyu. ànd ci kanam ma mën a remercier tamit. ay Thiam si nga sa waay nuyoo na remercier na la lancé na ay cadeau maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay. ay sant yàlla bu baax a baax a baax di gërëm sama ñaari waajur. di leen ñaanal fa ñu tëddee yàlla na leen gënal fi ñu jóge di ñaanal sama yaay ji nga xamante ne moom laa fi dese yàlla bàyyi ko fi si kanam ak kanam ak kanam di ñaanal sama sëriñ Pape Moulaye si mu sëñ Abib si yàlla na yàlla yokk xam-xamam yokk man-manam yokk kàttanam waaw di gërëm mbër yi fi nekk ñëpp waaw di nuyu sama adversaire aussi mhm. waaw acca mbër moom lay nuyu de voilà donc buñ ñëwee si combat bi nii mhm. combat bi nii du man ak moom la woon ah nekkutoon yéen ñaar. non non combat bi man ak Bas la woon. waaw bi may bi ñu may wax bi combat bi taxawoon na bu yàgg balaa ñuy jël balaa saison bi di di tëj. Mhm. ci laa ñibbi Casamance dem préparé. Mhm. bon li ma préparé yëpp si Mbas 2 kii Bas 2 daa nekk li ma ko préparé bi zéro la mais. Mhm. rëccuma ci parce que. est ce que nekkul li nga ko préparé est ce que li nga ko li nga ko yéen moo diis. non non bëri na temps yii nii combat. bëri na temps bu jëlee combat rek combat sama ma xam ne que li si sama destin kii moo nekk sama destin donc euh, pare naa ko pare naa combat bi comme ni ma ko ni ma doon préparé yeneen combat yëpp. loo gën a wàcc loo wàcc ci combat bi. li ma wàcc plan yëpp laa wàcc ndax làmb laajul benn plan. est-ce que xam nga ki ngay bëreel. xaw ma ko je n'ai pas besoin de de de le connaître moi j'ai confiance en mes qualités à moi. Hmm. oui mais est-ce que loolu wóor na ak fi làmb toll di bëreeg mbër te xamoo ko xamoo qualité am xamoo li mu mënee xamoo li mu. est-ce la la question que je te repose est-ce que lui il me connaît. est-ce que lui il te connaît. waaw nee na ndax. xam naa ko bu baax a baax a baax. xam nga ko xam naa ko xam ay qualité am Ah, te ñu neena xam ñun ragaluñu loolu. xam naa ko na xam na la xam say qualité de. ma la il n'a pas n'a pas dit la vérité. c'est faux. Hmm. parce que ki nga xam. ki nga xamante ne a bokk écurie yéen ay hmm. nga xam war boo leen da boo leen jàppante ni xam ne mu mel mais kii mosuñu. contact mën nga xam mën nga xam contact ak moom. même mos ne mos na ma seetaan may bëre. Ah. na na nax na boppam de. ah bu daa ki ki bëre si làmb hmm. moom laay contactal. kon ku am ay quelques minutes mënuma jaaxal. ma ne dégg nga ko ma ne. Uh-huh. ku dëkk contact si lamb bi amul kenn amul fen ñu ñëpp ay champion lañu mbëri yi nga gis yëpp ay champion lañu. Uh-huh. te balaa ñuy egg foofu noonu amoon na ñu taxawoon foofu noonu seen position ku muy wax noonu ñun dañoo faale loolu. Uh-huh. yow ki nga ki ngay contacté bu fekkente ne moom mooy mooy gën moo gën a doon mbër bi gën a xam ne bi nga xamante ne moo. c'est le le plus euh, comment le dire le, le plus extraordinaire du Sénégal man faalewu ma ko ndax du mbër boobu noonu moom mooy ñëw yow sa jëm boobu yaay kenn weranteew ko man ak yow ñooy jàkkaarloo loolu kenn weranteew ko man damaa liggéey avant yow mii di yow mii laa doon xaar kon yow du yow yaa may téye non non nekk. am naa quatre combats quatre victoires. man ma am trois combats trois victoires bii mooy quatre bii mooy quatre victoires. bii mooy sama cinquième combat. kenn déggagul mu ne eh, la ay gars tàccu leen loolu. ñaari champion ñoo fi teew de. te du moom moom mooy téye nag du moom moo ah. moom mii moo may téye. goxu loolu dafa leen caaro yi dañuy yeewu bëre tëdd bu bëre. Mhm. kii tamit fi mu dëkk yaakaar na ne bu nekkul goxu làmb tamit mbër bu jóg dafay dem parce que am na lu fa gars yi di wuti. man nag bëree dem kaa nam. Mhm. waaw waaw dès le bas waaw bu may quand je conduisais mes taureaux au pâturage là. au pâturage. fa la ñuy dem bu ñuy daje ak yeneen clans yi ñi nga xamante ne dañoo ñëw tamit sàmm. Mhm. ñun dañuy bëri ak dañuy def dañuy njëkk a def suñu nag yi ñu bëre. après ñu ñu dem dañuy naan dañuy dem suul kii en. mooy tànk nag yi hmm. bu kenn jaar fii ni mu xam ne nag yi bëri nañu fii comprendre hmm. donc dañuy bëri ak gars ñun lamb bëre hmm. technique lañu njëkkoon ut balaa ñuy dem uti doole technique voilà et li ma gën a arrangé tey ji li ma gën a arrangé tey jii li ma gën a li tax ma gën a li tax tey jii ma gën a am euh, technique li tax ma gën a yokk sama xam-xam ne si bëre donc euh, sama benn tonton euh, il était champion de la lutte Euh, olympique. Mhm. Euh, mu doon représenté Sénégal fépp. Jean et Chocolat Diatta maa ngi euh, maa ngi vraiment il nous a quitté l'année dernière. Mhm. donc que son âme repose en paix. amiin donc mu doon nit ki nga xamante ne daf maa jàngal bëre man bëriwuma pour bëre. bëriwuma parce que damaa ñëw nii di léewota non non non su ma saisiree si je fais une pince une si je saisis la la main de adversaire juste une pincée manuelle comme ça xam naa lu tax ma jàpp jàppuma pour ba bàyyi. am na lu tax ma ma jàpp. am na lu tax ma jàpp voilà te su ma jàpp da non man kii boo ma mayee boo opportunité première opportunité bu may may dama koy saisir. Ah. waaw waaw. ah nee na saisir mosuma bàyyi. jàpp combat bu jeex. waaw ah, moom jàpp lay wax. waaw moom tant que jàppul du bëre. Uh-huh. man damay bëre sans jàpp ngeem. da ngay bëre jàpp. sans jàpp ngeem sans jàpp dama koy bëre. Ah, moom day xaar ba jàpp. waaw ñoom seen dëkk. yooyu la ñuy bëre bëre jàppal ma jàpp arbitre doog a siffle yooyu lan xam waaw te man jaar naa ko. nee na jàppal ma jàpp nga xam de. certainement tu t'es trompé encore. Mhm. pour une deuxième fois. Mhm. da demal li nga revisionnaat sama vidéo yëpp yi nekk si YouTube li nga xam ne musuma musuma xaar sa jàmm jàpp dama tey jii bëri bi nga xamante bu ñu ma newoon tey tey jii bëri jàpp kii jàpp ngem ak bi nga xamante ne amul jàpp ngem ma ne dama jël bu jàpp ngem parce que ngem ba deret nekku fa di nekku fa yax nekku fa donc gaaw ma ci gaaw ma ci. gaaw ma ci yaramam kese laa soxla. nee na nee na daal sa yaram la soxla. nee na ah. jàpp rek ba jour combat bi moom na la leer na. boo xeexee ma duma la soo bëree ma jàpp la daan la loolu na la leer sa bopp. bii mooy sama premier hmm. moom laa ko laa njëkk a dégg boo ma duma la soo bëree ma daan la. Hmm. voilà donc. Euh, mi fii nii fi ma nekk nii man. am ah, xanaa su ma préparé combat kay du damay ñëw damay ñëw xeex am na fa bëri am na fa. Hmm. ñaari waaw donc loolu moo fa am. soit nit ki da ñëw. nga bëree nga daan nga doon nit ki mu daanu soit nga bëri nga daan ko si da si jël léegi moom nen daf may daan man damay bàyyi loolu yëpp si ba loxo yàlla man personne ne va me personne ne va m'obliger à parler ce que mhm. comme ça daf ñu fay ñun tamit dañ koy jox dañ koy jox voilà que ça soit qu'on se dise la vérité mais man mm. je n'ai pas envie de dire que euh, li nga xamante ne ay avis keneen man damay wax samay avis da nga may daan danga may daan kay si yàlla boo bëree ma daan la boo xeexee ma duma la daan la. le 31 décembre di nga ko def. incha allahu rabbi. bu ñu taxee man ak yow ñun ñaar kese di ko def. sëñ bi xam nga ay ñaata kilo laa doon bëre. man waxuma ko de man dama la bi passé répondre sama question bi rek que bu ñu taxee man ak yow di daan. sa waay yow doyoo ma gàllax ndiku ah déggoo ma. ok maa ngi xaar ba le ma boo ko defalee. boo ko defalee. gaynde man dama lay daan ba pare. man lébu laa doomu lébu laa. la nee nag. doomu lébu laa et et ñi nga boole. ok Joola ngay wax Joola ak Lebu loolu xam naa ne du yomb waaye côté mobilisation parce que da ngeen promoteur bi li mu wax mbër bi mobiliser di neexal bokk na ci li profil sa mbër tey mu dem ba ci kaw a kaw a kaw mobilisation foo leen ci toll voilà si côté mobilisation bi euh, on fait appel à toutes les personnes ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy suivre ñi nga xamante ne dañu jàppale donc man maa nga je fais appel au président au kii au directeur du COUD mooy euh, université bi waa Maguette Sène hmm. pour mu jàppale ma si euh, la vente des tickets. Euh, di woo étudiants yi yëpp étudiants université yëpp étudiants nga amel affaire nag étudiants. étudiants ngay bëri de yaa ngi bëri problème. étudiants yi ñëpp fa. sama mbokk lébu yaa ngi fa toog bari fa fees fa. dellu dégg nga ma donc di di ab di woo monsieur le maire de la commune de Diembéring di woo waa Casamance yëpp sama yaay sama paay yëpp donc di leen naan combat bi nii mosuñu xeeb nit. bu tolloo nii sax mosuñu ko xeeb. Mm-hmm. ñu doon fu ñu doon jaar nañu jaaraat foofu noonu ñu demaat de mm-hmm. donc di woo euh, waa Pikine. Mm-hmm. di woo waa Parcelles. di woo waa Fass Delorme. di woo waa INSEPS. di nuyu sama élèves yi au lycée Lamine di nuyu sama encadreurs yi fa nekk comme euh, monsieur Edmond Faye. monsieur Faye monsieur Diouf. Euh, monsieur Mbengue. ak monsieur Koundoul. di nuyu sama sama. di nuyu sama promotionnaire sama trois promotionnaires yi nga xamante ñu ñoo fa nekk di def stage. voilà di nuyu waa Casamance yëpp. di nuyu euh, ñëpp ñi nga xamante ne vraiment jàpp nañu si combat bi di nuyu waa Kabrousse ñi nga xamante ne ñu ngi diaspora. Mhm. ñu ngi si diaspora bi. Mhm.